خليفة يا خليفة تيجان يا خليفة يا خليفة تيجان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من أرسل walam yursal illa rahmatan lil alamin sayidina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci suñu bindu mag ñi tey tey nag ñu amaat ci ba tey bind moo xamante ni mag ko bind ci mag doom bind ko ci baay sëriñ taalibe bind ko ci sëriñam muy xasida bu sëy Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum bind ci sëriñ Babacar Si mu ni judli bi xayri xalifatin judli bihi wa bi ilmihi wa bi rushdihi aw tibihi mu ni judli may ma bi xayri xalifatin ci gën gi xalifa sëñ Babacar mi may ma ko jox ma ko nee na ku bëggul rek nee jox ma man Cheikh Tidiane bëgg naa nee na boo ma mënta may kër Babacar léppam ba mu jeex judd judli may ma bisi ci moom jox ma sëñ Babacar te mu bañ a ànd ak xilaafa gi muy sëñ Babacar kese bu fekkee mënoo maa boole jox sëñ Babacar ak xilaafa gi joxoo ma sëñ Babacar kese wa bi may ma sëñ Babacar xam-xamu sëñ kër bu fekkee mënoo ma jox xam-xamu sëñ Babacar nee na wabi rushdihi may ma njubug sëñ kër bu fekkee mënoo maa jox loolu aw tibihi nee na jox ma teeyug sëñ Babacar nee na yi daal loo ma ci jox bëgg naa boo mënee jël xilaafa geeg xam-xam beeg ci njub geeg sëñ Babacar ensemble lépp may ma bëgg naa soo ko mënul jox ma sëñ kër kese soo ko mënul jox may ma xam-xam ba soo ko mënul may ma njub ga soo ko mënul may ma teey ga dafa bëgg a wax ni sëñ Babacar loolu la jox ci moom rek baax na mu ni laa yaarifu saqalaani awlaa minhu bil ikraami aw bil juhdi fi tarxiibihi mu ni laa yaarifu xamul as saqalaani ñaari wi ndijj bopp yi nit ak jinne awlaa ku gën a yey bil ikraami ci ku ñu war teral minhu ci sëñ Babacar nee na nit ak jinne gisuñu xamuñu koo xamante nii mënees na koo teral gën naa yeyoo teraanga ci sëñ Babacar aw wala sax yaarifu muy xam ak saxalaani ñaari dijj bopp yi koo xamante ni it moo gën a yey bil juhdi ci yittewu gi sëñ Babacar di yittewoo fi tarxi bi bi ñu yittewoo fi tarxi bi ci ci ci yaatal ko waaw nee koo mën di recevoir nee na recevoir sëñ Babacar moo ca gën a yey waaw koo mën di dalal di ko yaatal nee na yaatal sëñ Babacar kooko gën ta yey ci sëñ ñu yaatal ko ci sëñ Babacar c'est-à-dire yaatal sëñ kër moo gën a yey dafa bëgg a wax ni rek kenn gënu ko mu ni qiyamun tasaacadu minhu xatta xuwilat mataran yasuubul xayra min shububihi nee na qiyamun sëñ Babacar dafa amee ay jikko ay valeur tasaacadu yoo xamante ni dafay kawe kawe lu di yéeg min wu jóge ci moom xatta xuwilat ba ñu soppi valeur ya mataran muy taw ya suubu buy sotti alxayra yiw min sububihi ca ca waame ba te niir wa nee na niiru sëñ Babacar nee na ay valeur la yoo xamante ni valeur yi ma ngay yéeg jëm ca kaw bu mu yéegee ca kaw nag dem na ba dajaloo def niir nee na wàcc nag nekk nekk taw ci kaw nit ñi waaw xëy mun ta tasaadu la nag waaye nag mu ni tasaad waaw mooy bu yéeg ndànk-ndànk waaye dëgg-dëgg na muy yéegi sax xamuloo ko waaye dafa dafa wàññi degré bi comme li nga xamante nii moom la yàlla wax rek fa andartukum naaran taladda yaani tataladda la ndax naar mooy feel bi feel mooy faayil bi feel ba ca tegu di jigéen kon dañ ko waroon a góoral te dañ ko war a jigéenal mais kenn waru ko góoral kon bu doon talazat la wa fiil bi waaye fiil bi du talazat mais fiil bi yatalazza la mais nag ñu far benn yaa bi comme góor la nag tatalazza la waroon doon ñu far taa bi mooy dina tàkk waaye nag xaraf euh, euh, euh, bu ñu ko yokkee ci baat dafay maanaa ba day yokk waaye buñ ca wàññee baat it maanaa ba daa wàññeeku comme tatalazza la ñu dindi tal taa bi loolu dafa wàññi maanaam dafa wane ni safara ñii ñu lay waxee tàngaay bi boo demee ba yowmal qiyaam dañuy yokk degré bi fi mu toll nii safara ma ngay tàkk waaye tàkkaay bi tàngaay bi nit ñi la koy melale yépp bu yowmal qiyaamee dañuy yokk degré bi waaw moo tax euh, dafa dañu wàññee xaraf yi ci wàññi maanaa bi xeemun tamit ta tasaadu la woon moom it dañu wàññi xaraf yi ci wàññi maanaa bi waaye dëgg-dëgg na muy yéege ëpp na mu ne aashat xawaariquhu wa aasha salaaxuhu fa tawaazana al min tarkibihi aashat ma ngay dund na ay xarbaaxam nee ay xarbaaxam fi la des waaca dund na it salaaxuhu ak mbaaxam nee mbaaxam it fa la des fa tawaazana nag muy màndaxe al asiyaa u mbir yi min tarkibihi ci buñ ko tof toftale buñ ko toggale waaw maanaa mbaaxam ak yiwam daanaka bo booy seet doo wax ni bii moo gën te daal di sëñ Babacar dafa gën ëpp xam xam-xamam moo ëpp wilaayam wala wilaaya mu ëpp xam-xamam wala njubam moo ëpp boo ci jël daal da boo ci jël daal da lay satisfaire amul bu ci wàññeeku bu ci nekk rek dafa yegg ci ci sommet ba mu ni tallaahi maa ngi waat ni lam yura gisiwul misluhu ku mel ni sëñ Babacar fii xaw mi ci ay nitam sëriñ bu mel ni sëñ Babacar amul de mu ni lu tax fasal laajal albisaata suuf shababahu ba mu dee ndaw fii sii bi ba keroog mu nekk màgget waaw moom sëñ kër ndawam mënul xas magam béjjaawam it mënul xas ak ndaweem maanaam dafa set wecc mu ni ñoom sax addu shahadatahum amaama suratihim fa taajabu min xaddihi wa nasibihi addu jooxe shahadatahum seen seede amaama suraatihim seen karamu sang ya fa taajabu sang ya nag daal di yéemu min xaddihi ci cëru sëñ baabu ko wana si bihi ak cëram boobu xatta wa fi l atfaali minhu maasirun arafu bi nuurin fii qabla xalibihi nee na xatta dafa mel ni sax wa fi l ci xale yi dafa am maasiru ay jeexital minhu yu jógee ci sëñ baaka sëñ baaka daal dafa mel ni dafa njëkk nit ñi ci xale yi ndax ñu ni ko lu tax mu ne xalekat kat arafu xam nan bi nuurin ci leer fii ci sëñ Babacar leeru sëñ Babacar qabla xalibihi lu jiitu ñuy nàmp seen weenu seen meewu yaay maanaam nee na xale bu juddu dafay mel ni sëñ Babacar dafa teg meew ma avant ñuy nàmp meew cofeelu sëñ Babacar lañu njëkk a nàmp moo tax ñuy wax xale yi juddu ci ginnaaw mbay waaw gisuñu mbay te mbay la gëm maanaam dañu nàmp cofeelu sëñ Babacar waaw fata fattaqat nag mu ubbeeku azharu rawdatin euh, fleuru gët euh, fleuru dërëm muy jardin ba rawdati xubbi muy jardin wu cofeelam ba fi tullaabi ci bëtu ñuy sàkk ñëpp muy taalibe kay yajtazuhu ngir muy bég muy naat bii ci ci sëñ Babacar waaw bii ci barke sëñ Babacar si moo tax tatawaaradul afraadu fi aknaafihi shaghafan bihi wa bima bada li raqibihi nee na tatawaaradu dafay rot al afraadu ña ñàkk mooy ay nit ñu ñàkk ndend fii aknaafihi ci gan ci waragu sëñ Babacar maanaam dafa bon ni sëñ Babacar ñi ko wuyu si ñëpp ñu baax la te nga xamante ni ñoo gën ca seen génération gën ca seen askan ñooñu la ñoo nekk ay taalibe sëñ Babacar si saxafan na ngir sopp bi ci sëñ Babacar boobu maa ak la nga xamante nii ba daal feeñ na li raqi bi ngir te koy fuglu muy suñu borom mooy la ko yàlla defal moo tax ñu daw si wut si ko waye la ko yàlla defal moom sëñ baako lolo taxit ñom ñu sopp ko way lam wax fële ci benen qasida wa ataka la bidaayatin ahli safa aw far minka muanidun isa xiila mooy ñëpp ñëw nañ waye ku la ku deung rek dawna la mu ni sëñ baako daal taxtaaru kullu jamaatin miqaatahu li yarudda anhu charra bismi xasibi nee na taxtaaru dafay tànn kullu jamaatin bépp mbooloo miixaatahu bërëbu sëñ Babacar mooy miixaatam ya waaw leeru da ngir na dellu delloo anha ci wa asharra ay bismi xasibi ci ci turu ki nga xamante ni moo ko doy muy suñu boroom waaw mooy ku jaq daal daw nga wuti ji sëñ Babacar rek mu ne xakamun yara anna alxadarata lam takun illa li isaadi mriin wa qaribihi nee na xakamun moom daal ab la boo xamante ni médiateur bu bu bu bu yeewu yara boo xam ne daan na gis ne annal xadaara naka civilisation lam takku amul illa nekkul illa li isaadi mriin lu dul ni day texeel nit wa qaribi ak ku ko jege nee civilisation day tax nga tedd bu fekkente ni civilisation nag day lay tedd di nekkatul civilisation civilisation wu summi sa yére civilisation wu def lo xamanteni yu fu rab yi la neena lolou nekul civilisation civilisation da fay ñëw pour renforcer personnalité doomu aadama waye ñëwul pour di toroxal doomu aadama أعوذ بالله السميع العليم فكل حضارة مشؤومة yashqa biha al insanu raghma mujibihi nee na awlaa bu dul loolu nag fa kullu xadaarati nee na bépp civilisation nee na mashumatun nee na euh, li ñuy tuddee euh, gaaf gaaf lay doon yashqa boo xam ni dana texee di bihaa ca civilisation bi al insaan doomu aadama raxma mujibihi kemtalaayu ndoom ko euh, malgré wuyu gi mu ko wuyu maanaa civilisation bu fekkente ni nee na yokkul sa texee di bu la texee bu yokkul sa texe dalay texee dil maanaam day ñëw teral la rek wala mu toroxal la moo tax civilisation daal boo gisee ni du la teral rek moytu ko ndax fa mu lay jëmee di mooy texee di texee di nag mooy tabal la safara mu ni lam yaltafit li kawaarisin wa xawaadisin laqiya zamana wa lam yafuh bi uyubihi neena lam lam yaltafit gëstuwul li kawaarisin ci ay catastrophe wa xawaadis ak xew-xew laqiya dajana ak zamana jamono walla walam yëfu te taw ŋaangul waxul bi uyubihi ay ayibam nee na sëñ kër jamono mënu ko tuumaal li mu nekk na ci jamono indi mbubb mu weex tàll dugg fi ba génn fi te jamono mënu mënu koo xool ni ko yaa fi wax nanga wala yaa fi def nanga muy lu ñaaw maanaam jamono mënu koo tuumaal ndax moom kat qad anqada al ulamaa min qalaqin bihim mal gam yargabu fi liqaai xabibihi nee na qad anqada xettali na al ulamaa borom xam-xam yi min qalaqin ci ay souci muy ay njàqare bihim yu nekkoon ca ñoom nee na mal gam dégg njàqare yargabu di xemmem fi liqaai xabibihi ci dajeeg sopp sëñ Babacar nee na njàqare dem na ba mujj gi bëggul sax so dajeeg soppi sëñ Babacar ndax gis na ni saa yu soppi sëñ Babacar amee njàqare nee na bu woowee sëñ Babacar sëñ Babacar nee na dina ñëw xettali ko ba njàqare ga dañ mu ni dem na ba njàqare ci boppam dafa tàyyi découragé ci dajeeg xaritu sëñ Babacar wa kaza bi rida darsun lahu wa mabaadi u takwini min tartibi wa kazanaka at tafaawulu mooy optimisme optimisme mooy di di di di yaakaar euh, bir rida ci ngërëm waaw darsu nee na leçon la lahu di ko ñël boo xam ne sëñ Babacar daf ko daan joxe maanaa da daan yaakaarloo nit ñi loo xam te daaw leen euh, ku ko gis rek say sa xel day dal waaw wa mabaadi u takwin nee nag principe yi formation yi muy formé yi moom ko moom la doon def fii tartib yi ci toftale ko nag nee na yooyu dafa bokkoon ci principe yi nga xamante ni noonu la daan noonu la daan formé nit ki ba nga xamante ni sa yaakaar ci yàlla mooy ëpp ci sa tiit waaw xataa xada cheytaanu yasruxu kullama arafa alxasaarata musqalan bi zunubihi nee xataa xada ba mu xëy mujj na acheytaanu cheytaan yasruxu di yuuxu kullama arafa saa yu xamee alxasaarata perte musqalan muy aji diis bi zunubi ci ay bàkkaaram ndax iblis su jógee ci nit li muy bëgg mooy weddiloo ko bu ñëwee ci nit nag jéem koo weddiloo jéem ko weddiloo mënu ca dara iblis day day yuuxu cest à di danaan man perte naa kii de gañe kii de aw ma ndam ci moom mu ni taalibi sëñ kër nag sëñ Babacar dana def ci moom loo xamante ni Iblis dootoo dootatul man ci moom dara moo tax taalibi sëñ Babacar néew na ñu ni la diw taalibi sëñ baaba Babacar la nga gis ko mu dem nekki leneen sëñ Babacar am na nu mu leen di nu mu leen yare am na nu mu leen jàngale nu mu leen yeewe nu mu leen fexe ba ñu am yaqin ba du ñu dendale sëñ Babacar ak dara moo tax Iblis du leen mënal dara moo tax maa sabba aadaan walakin andahu xujajun tasunul xurra an ma mu ni takat xeexul xa xarewul saagawul moo tax maa sabba saagawul ŋàññul aada an ay noonam walakin wante indahu dafa amoon xujajun ay lay yoo xamante ni tasunu day ñoŋal alxurra gor an mahjubi walis ka koy yiir jëmale ko ci dëgg maanaam dafa amoon ay moom euh, presque répondeur automatique la woon moom sëñ Ba loo ko laajee ci saa ci tontu bi ci ci catu làmmiñ bi lay nekk waaw parce que dafa am ki koy liggéeyloo moo koy wax loo moo koy tontuloo moo tax loo ko laaj lu ma masala bi diis diis boo bu la tontee rek nga nangu muy nag loolu nag a ajibun mbir la bu yéemu lan fahmuhu déggug sëñ Babacar dégg mu dégg jamono dégg ko àdda dégg ko xaqiqa dégg ko alquran dégg ko sunna nee na loolu lu wa zakauhu waaye ñawam te mooy muusam mooy sëñ Babacar na wilaaye ga tol doon la xel ma tol mu ni ali kulli fahmin misluma li ajibihi ali kulli fahmin ndax ñeen la bépp dégg misluma li ajibihi lu mel ni la nga xamante ni moo yéem sëñ Ba mooy la yéem ci sëñ Babacar nee ndax mus nga gis sax ku ku déggee ni sëñ Babacar nee na déedéet amul laa laa déedéet amul loolu amul wa fil aada bi nee na ci teggin ya sax teggin yaram nee na sax doo gis ku mel ni moom moom daal fardu zamani yi nee na ku wéet ci jamonoom la neen ni mu yaroo sax nee na dafa wéet ci jamono mooy dajale li nga dajale yëpp ba pare ñu dégg nee na loolu daal nekk gum nekk fardu jamono moo tax nee na moo tax yar googu nee na dafa nit ñi mu ni dem na sax ba mujj gi yar googu sax nee na jamono di wëlbatiku di roy sëñ Babacar ci yaru googu inna zamana naka jamono mu addabun dafay yaru bi adibihi ci yaru sëñ Babacar kaanat tunaa wibuhu tunaa wiuhul ajillatu xaflatan fatanazalat min baadu an urqubi nee na kaana nekkoon na tunaa wiuhu nee na di puukaranteeg moom al ajillatu nee na mm, mm, ngënk ya xaflatan ngir ngir sàggan rek waaw ñi nga xamante ni ay ngënk lën nee na dem doon nañ puu ko rek moom waaye fu fun mujj fata nazalat nee na ñu wàcc min baadu gannaaw loolu an orqo bi yi ca seen yi ca tëstan ya nee na dem nañ eh, an orqo bi walis tëstani sëñ Babacar maanaam nee na ñi doon diir mbagg sëñ Babacar nee na dem nee na bañ xoolee seen bopp xool nañ ni ndekate seen cër ak sëñ Babacar cëru sëñ Babacar nee na yamuñu sëñ Babacar sax ci testan kon raw na leen raw gu ku gu amul fu mu yem mu ni wakaza naka noonu tuxaawilu an tasiira masirahum ulul amaim awtani bi rukubihi nee na wakaza naka noonu tuxaawilu doon na jéem an tasiira ba dox masirahum nañ seenub dox ga nuñ doon jéem dox di jéem ñooñu ñooy ñan mu ni ulul amaim mooy borom kaala yu rëy aw tën yi mujj gi ñu wëlbatiku nag biiru koo bi ca seen waruwaay ya nee na am na ñu doon jéema toppandoo toppandoo sëñ Babacar ci ni mu mel waaye ndekate loolu yàlla moo ko defal sëñ Babacar dañu ni koo fekki si ci mayam ci maninam xeeb sa bopp ndekate sëñ Babacar loolu mu meloon nekkul lu mu incarné ci boppam mais lu ko yàlla bind la c'est-à-dire c'est inné lu yàlla def ci moom la moo bokk ci jéem a roy da ngay tàyyi moom nag du tàyyi parce que noonu la mel waaw fa min aljahalati an tuqaarana jannatun bi jahannamin walfarqu fi taswibihi nen fa min aljahalati bokk na ci réer an tuqaarana ci ñu dendale jannatun ajjana bi jahannama ca waaw mu ni fa min aljahalati bokk na ci réer an tuqaarana ci ñu dendale jannatun ajjana di ko lëkkaleeg bi jahannamin ci safara nee na safara ak ajjana sore nan nee na tëkkale sëñ Babacar ak keneen mi ngi mel ni tëkkale àjjana ak safara ci ku gën a euh, fu gën a neex wal farqu teqale gi euh, fi taswi bi mi ngi ci jubal nee na wax ni safara ak àjjana daal bokkuñu nee na mooy jubal nga loolu mooy ak njub waaw waaye boo leen bëggee dendale rek yaa ngi juum mu ni tilka al xaqiqatu laa tuqaasu bi aadatin am yaa ama nafaxuuhu fi unbuubihi nee na tilka al xaqiqatu nee na dëgg googa ngay eh, muy xaqiqa bi sëñ Babacar di dund laatu xaasu deefu ko natt bi aadatin ci aada ne ndax sëñ Babacar ci xaqiqa la nekk te ñu koy dendaleel di ko nirool ak ñoom ñoom ci aada la ñuy dund nee na du benn aada goo xam sa aada am yaa la mooy aada goo xam da ngaa ñëw fekk say maam nekk ca rek nga nekk ca sa maam di sëriñ nga ñëw di sëriñ nga sa baay di sëriñ nga ñëw di sëriñ waaye lii tax nga nekk sëriñ nekk moo tax maa nafa xuuxu yaa ni wàllu fa fii un buubu yi ca seen jëmm ya mel ni gunto maanaam koo ci gis daal euh, li ñuy tudde habillage la rek sañ sa bee fi nekk waaye nag lay tax ñuy wax sëriñ nag nekkul ci ñoom te mooy njàng ak jub ak euh, ak cëru yàlla nekkul ci ñoom kon nag daani aqul laka maa jara fi asrihi lama daa aadin ila tajribihi nee na daani ba ma aqul laka ma nettali la maa jara la xewoon fi asrihi ci jamonom lama daa ba wootee daa aji woote ilaa tajribi ti jéem a ci jéem a nattu sëñ Babacar maanaam bañ koy jéem a testé maa ngi lay xamal ni la xewoon kaay ma wax la lan la mooy wajaduhu aqwa man yadinn bi majdihi asadan isaftaxara laimu bi zibihi bi zibihi nee na daal euh, ñañ ko doon dendale nee na dafa mel ni ba ñu indee sëñ kër ñoom ñu indi seen mbër nee na biñ ko tegee dafa mel ni muus euh, dafa mel ni till goo jël teg ci kanamu gaynde xam nga till la gaynde sore sore nan waaw mu ne wajaduhu aqwa mu gën a kawe man yadunnu bi majdihi ña nga xamante euh, xam ñi nga xam te dañu nay bi majdihi ci tedd nga am ko moom sëñ Babacar lu mu ca lu mu lan la mel asadan nee moo gënoon a dëgër moo gënoon am kartan gaynde isaf taxaral la imu bi zibi nee na ka nga ni mooy aji ku ñu ŋàññe la di di layim bi ba muy tiitaru bi ji ci ci tillam maanaam nit ku ñëw indi tillam teg ni mooy mooy mbërëm nee na ba sëñ baaw kër génnee dafa mel ni gaynde gu taxaw ci kanamu till mu ni ab zulmu fi l islaami jiddu safahatin fala rubbama naqaluhu an tahzibihi nee na zulmu nee tooñ fil islaami ci lislaam jiddu savaati mooy dëgg dëgg réere mooy dëgg dëgg euh, xel mu gàtt ak ak ndof nee na tooñ moom bokkul ci lislaam fala tazaalamu la yàlla waxoon nag fala rubbama naqaluhu nee na bëri na sax bu ñu ko toxalee an tahzibihi walis ci yar ga maanaa euh, tooñ moom nee na nee na nee na baaxul waaw nee na dem na nag ba mujj gi tooñ sax dem na ci jamono ba mujj gi fa ñu waroon a yare mujj gi eh, ñu tàmbal nit ki tooñ waaw ku waroon a ku waroon a yaru léegi nag tàmbal boppam ñu tàmbal ko tooñ loolu nee na musiba la nag ci péncum lislaam axlaaquhu tazku bi taqdiraatihi lam yaqbalil israafa fi tadribihi neen axlaaqu jikkoy sëñ Babacar tësku dafa sel bi taqdiraat yi ci natt maanaam ci nattale gi maanaam sëñ Babacar daawul ëppal waaw la doon ko waxoon fi kalimatu xutuwaatuhu laxazaatu adxat muqaddaratan wala taqdira waaw mu ngi noonu adxat muqaddaratan wala tafdila waaw mooy sëriñ Babacar si dafa dañu nattale ay mbiram maanaam ëppul doon rek ko natt du ci ëppal ndax kat lu tax mooy lam yaqbali nanguwul moom sëñ Babacar israafa ëppal fii tadribihi ci ci tàggatu gi muy tàggatu mu ne nag nafsun bi nafsin xikmatun mardiyatun aynun bi aynin jaa min maktubihi ne na nafsun bakkan la bi nafsin ci bakkan xikmatun di xereñ mardiyatun boo xamante ni lu ñu gërëm la Euh, muy xikma mardiya aynun la jëm bi aynin ci aynun bët bi aynin ci bët jaa dikk na min maktubihi waaw ca la nga xamante ni yàllaa ko euh, bind waaw maanaa daf la bëgg a xamal nekk lu mu doon rek daf ko natt waaw dafa mel ni rek lu ñu natt lu ñu natt waaw inna alxayaata baliyatun wa rawiyatun wa huma aljihaadu walaw ala taxribihi nee na innal xayaata naka dund daal bali yëtun nee na ay balaa la nag war a wiyatun ak lu neex c'est-à-dire lu neex ak lu naqari la waxumal jihaadu mooy jihaad wala ala taxribihi doonte yàq-yàq am na sax ci jihaad waaye nag noonu la hmm? adduna loolu la mooy neex ak naqaree ci am fil afwi ajru ajrun ma bada laka radian qad qaadahu yowman ila masxubi nee na nag nekk na nag ci ak baale ay ajrun yi pay waaw nee na saa yoo xamante ni aji tooñ feeñ na ñëw ci yow di la tooñ wala di la gaañ nee na nga baal ko nee na nag ay yiw a ca waaw man afa wa aslaha waaw waaw fa ajruhu ala allah la yàlla wax mu ne xat xaadawul koo xam loo xamante ni dina ko law dina ko woman yow man bés ila mas boo xaw yi jëme ko jëme ko ca bàmmeelam ki nga xamante nii Euh, ba da daan baale nee bu duggee bàmmeel ci lay xam dëgg-dëgg baale njariñam mu ni fa shajaatun bi lataafatin wa siyaadatun bi wiqaayatin yaqdi biha li wujubihi li wujubihi nee na fa shajaatun njàmbaar la bi lataafatin bu ànd ak nag nooy mooy ñeewante wa siyaadatun nee na ak ak ak càng la bi wiqaayatin bu ànd ak wek wek boppam yàqat yi boo xam ne day sàkku bihaa ci moom nag li wuju bi ñeel la war maanaa ak cangam nag du daf ko booleeg personnalité bal waaye nag terewul la mu war a def da koy def sëñ Babacar li mu war a def kenn mënu ko koo teree def ku dul sunu borom maanaa daawul masala di mas daawul ci diineem déedéet kon nag yaa qaidi hal fi ridaaka himayati ali kulli asrin rahmatun bi garibihi mu ni ko yaa qaayidi yow nag yaay sama guide yow sëñ Babacar Sy hal fi ridaaka himayati ndax sama kaaraange nekk na ci gërëm ci gërëm loola maanaam boo ma gërëmee est-ce que sama kaaraange la na waaw tontu bi mooy waaw mooy li mu bëgg ko wax rek mooy daal maa ngi gëm naa ni tànk yaa ngi may gërëm man Cheikh Tidiane du ma ragal dara ali kulli asrin ndax nekk na ci bépp bépp ndax nekk na ci benn bépp jamono raxmatu yër yërmande bi garibihi boo xamante ni bu tubranke lay doon boo xamante ni yërmande boo xamante ni bu bu lay doon waaw mu ngi noonu maanaa li mu bëgg a wax rek mooy garibu zaman nee na euh, toujours nee na dafay ànd ak yërmande ci kaaduru nangu gi nga xamante ni moom laa nangu nekk taalibe sëñ Babacar si ba sëñ Babacar di gërëm nee na bu boobaa nee na day mel damay ànd ak yërmande fu ma nekk ba pare ànd ak kaaraange waaw mu ne haadi yadi xusaha tafus bi maraamiha yaa waahiban yansaabu fi mawhubihi haadi daal lii yadi sama loxo la xusaha tafus bi maraamiha nee ko jël ko téyel sama loxo ngi nii euh, nga na tuufu bi maraami xaaj ci li mu sàkku maanaam sama loxo ngi nii daal jox naa la ko waaye am na lu muy sàkku ci yow maa ngi ñaan la muy sàkku mu am ko yaa waaxi ban yow mi nga xamante ni yaay aji maye yenn saabu muy sotti di yollal di sotti fii mawhubihi ca la nga xamante ni moom lay maye waaw inni naka man Cheikh Tidiane uxaatibu maa ngay waxanteeg man koo xamante ni yu xaati bu day wax daa iman fu mu toll waaw koo xamante ni e, mooy wax fu mu toll insaara ndem dox na dahrun jamono leen waraa ci mbindeef yi bi xutu bi ci ay mbambam bi mu muhimmatin ci ay yitte aw xaajatin wala aajo maxdiyatin bu ñu war a faj fii nafse xayri mubashirin mu ngi nekk ci jëmm gën gi nga xamante ki nga xamante nii mooy aji gën ji bégale yaqubihi mu yaqub waaw yàlla ma nga xamante ni wax dëgg yàlla moo ba yanquba jaaxle euh, fi nafsi yaquba qadaha aaya boobu moom lay moom lay illa xajata fi nafsi a qadaha moom lay moom lay junj fii moom la def talmiix mooy dafa wane ni lu mbir tar tar tar tar yàlla mën na xëy ci benn fraction de seconde mu mu dindi ko kon nag nee na kooko nag moom laay jàkkaaroo di wax moom kon lu ma koy wax nag kun lii malazan maa lii xaadisu nee na nag nekkal sama wéeruwaay yow yàlla fekk dara gaar gaar mu ngi gaar mu ngi dal sama kaw mimma yashaaw ci lépp loo xamante ni neex na allahu yàlla fii majdubi ci la mu bijj mooy yàlla lépp lum mu dogal wàcce ko sama kaw moom yàlla mi ko wàcc sama kaw ci moom mu laay daw wéeru wadoo nag te nga ñaan nag al ilaha buur bi yow nit ki riayatan ngir ngay aji sàmm li jamaatin wir euh, mbooloo boo xamante ni riyaa riyaa riyaayat muy aji sàmm di jamaatin mbooloo boo xamante ni tasaa dafay dox maa ngi ànd ak man saa yan dox bila tasribi ci lu dul benn yeddeel waaw may ñaan yàlla yàlla daal mun euh, mu ni mu ni yow nit ki yow ñaanal yàlla euh, ñaanal yàlla mu defal mbooloo mii nga xamante ni ñu ngi ànd ak man di dox ngir mbiru yàlla tal ñoom la ñuy dox euh, euh, benn yeddeel bañ caa am mooy li ñuy dox daal ci ndigal lañ ko teg kon nag ñu ni ñaan yàlla benn yeddeel bañ caa am wa ma zalika ala bi aziz kon nag subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin waaw mu ni fa min al jahalati bokk na خليفة جان يا خليفة يا خليفة جان